tey dañoo nekk fii di eh, sunu atelier bi pour installer li ñuy wax commité national de gestion des plaintes ci cadre projet cadastre et sécurisation foncière xam nga bu ñu yëkkatee di doxal projet bu mel noonu mu jëm ci wàllu suuf mënuñu koo def ni du am ay quelques difficultés ay problèmes mais li ci am solo mooy nga teg cadre boo xam ni bu difficulté yooyu ñëwee dinañ xam yoon bu ñu ko aw ba régler ko donc du comité bi comité national la avant moom am na ay comité yu nekk ci région yi gouverneur yi jiite ko yu gën a nekk ba ci communes yi sous préfet ak yooyu également jiite ko bii mooy quatrième niveau bi nga xamante ni bii bu problème amee ci niveau yooyu ci cadre projet bi te mënuñu koo régler foofu mu dépassé leen dañ koy remonter ci niveau national niveau national bi ministère des finances moo koy jiite ànd ci ak ministère sectoriel yu bëri mën naa cee wax lu mel ni intérieur mu ne ministère collectivité territorial agriculture élevage environnement ak yeneen acteurs yëpp moo xam société civile la moo xam direction générale yenn yi la yu mag yi comme direction DGID ak ak yeneen yi yooyu bu boobaa ñoom ñooy daje xool problème boobu ban solution lañ ci mën a apporter donc à chaque fois bu ñuy doxal projet bi benn jafe-jafe am ci te du ñàkk parce que ci mbiru suuf la donc euh, bu ci niveau local bi tëlee moo xam sous préfet yi la gouverneur yi la dañ ko remonter niveau national pour ñu jéem a xool nan lañ ci trouver solution bu baax. waaw li ñu ciy xaar tey jii mooy déjà comité bi ñu installé ko donc ki représente ministre des finances ak du budget léegi liir na discours ministre bi nga xam ni moo installé tey officiellement comité bi euh, bu ñu fi jógee membre comité bi également ñoom. dinañ leen partager ak ñoom li ñuy wax mécanisme de gestion des plaintes ñun li ñu xam ne yaakaar nañ ko bu plainte amee foofu lañ mën a am ba aw ba trouver fa solution loolu lépp ñu ko defee ñu bokk ko waxtaane yaakaar naan dinañ am ay solution yu baax yoo xamante ni bii saa yu problème amee saa yu jafe-jafe amee réponse bi dina ñëw waaw mbiru suuf mooy loo xam ni ñëpp ci war a dugal seen loxo parce que loo xam ni kenn nit rek wala benn bànqaas rek mën na ko régler loo tax ñun li ñuy wax communauté droit des communautés dafa am lu nekk lu ñu teg fu kawe parce que population bi surtout ñi ci àll bi ñoom li tubaab naan légitimité ci suuf ñoom dañ koo am parce que ñoom ñoo moom seen suuf ñoom ñoo fi yàgg ñu mënoo ko def te doo leen boole ci mbir yi fii ñuy waxee ak yéen am na président chef de village yaa ngi nii xam naa après mën ngeen koo jël moom aussi mi ngi association chef de village mi ngi fii mi ngi ñuy jàppale depuis lors te ku wax communauté wax chef de village wax village également donc sunu méthode ni ñi xam ne moom lañ nar a doxale mooy loolu yëf yi dañ koy commencé ci suuf bu problème amee ñëf ñan nekk ca diwaan ba waxtaane ko ak ca nañ leen organiser di yéeg ba ca gouverneur di yéeg ba ci niveau national donc loolu bu ñu ko defee macha allah je pense solution dina am